أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene dellusi ak yéen ci seen burdatul madix ñu war a waxtaane tey ñaareelu bunt bi di fi taxdiri min hawa nafsi bunt bi nga xam ni dafay wax ci di moytandikuloo bànneexu bakkan tey moytandikuloo nit ki mu topp bànneexu bakkanam bari na lu nit soobu bànneexu bakkanam moom moo ko ca dugal imaamul busayri nee na fa inna ammaarati bi suui ma taazat min jahliha bi nadiri shaybi wal harami mu ni fa inna ammaarati naka bakkan ba di aji digalaa kon ma maanaam bakkan bi may digal bi suui ci def lu ñaaw mu ni mattaazat moom de waaruwut min jahliha ci ak réeréem bi nadiri shay bi ci xuppeg bejjaaw wala xarami aku màgget koo xamante ni dem nga ba bejjaaw dem ba màgget ba pare di def lu bon bu boobaa bari na loo réere gis nga moo tax bay di ñoo jàppaloo moo tax bunt yi di nga xam ne nit ñi ñoo ko ci teg waaye du imam busayri ndax fi mu ne inni tahamtu nasiha shaybi fi azalin wa shaybu abaadu fi nusxin an tuhami kon mi ngi doon wax nit mi ngi tuumaal sax laaye biirug be jaww kon moo tax mu ni bakkan bii di ma digal lu bon moom day waaru wut ci ni bejjaaw dafay xuppe màgget dafay xuppe ndax ñaar yi ku ko def fu nekk sa xel war naa dellu ci ni léegi say fan jeex bakkan nag dañuy wax ni ñetti façon bakkan la bi mu tudd muy al amaara bi suu mooy bakkan boo xamante ni dafa lay digal lu ñaaw kese moom daal wuuteeg ndigal yi kese fépp fu mu xeemeeme mbir dana ko dem defi fépp fu mu gisee bànneex dana fexe ba jot ca bànneex boobu am na beneen bakkan bu ñuy wax al lawaama an nafsul lawaama mooy bakkan boo xamante ni dafay jàjji boroomam saa bu defee naka sudul noonu saa bu defee maasiya mu jàjji ko boobu bakkan moo tane al amaara bi suu waaye bi ci gën mooy an nafsul mutmainna mooy bakkan bi nga xam ni moom dafay dal ndax ak ngëm yàlla akuk dëggal dëggal daxalub suñu borom bi bakkan boobu fu mu toll moom dafay taqoo ak def ndigal ya ak di moytandiku tere ya kon an nafsul mutmainna yàlla nañu ko yàlla defal mooy bakkan bi nga xamante ni moom moo gën mu ni wala aaddat min alficli aljamili qira dayfin alamma bi rasi gayra muxtashimi mu ni wala aaddat te xarowuma maanaam préparewuma defuma min alficli aljamili ci jëf-jëf ju rafet comme lan mu ni qira dayfin lu deme ni ki berndeel gan alamma goo xam ne wàcc na bi rasi ci sama bopp xayra muxtashimin te mbir moom man duma koy yeres maanaam duma duma am kersaam mu ni man daal gan gi ñëw préparé ma pour ganalee ko jëf ju baax gan la goo xam ne wàcc na ci sama bopp muy bejjaaw te man sax awma kersaam xam nga moom moo xamante ni bopp baa nga fees dell ak bejjaaw muy def yëfu doyade ak ñàkk fayda day xeebu lool loolu tax mu ni gan gi wàcc na te man awma kersaam mu ni law kuntu su ma xamoon law kuntu aclamu anni maa uwaqiruhu katamtu sirran badaali minhu bil katami mu ni law kuntu su ma nekkoon aclamu di xam anni naka man maa uwaqiruhu gan gii di bejjaaw daal duma ko duma ko res duma ko duma ko wekk mu ni katamtu kon dinaa nëbb sirran mbóot secret badaa boo xamante ni lii di ma ñeel minhu ci moom bil katami ci turmbal mooy ak gàncax la rek bu dul fuddan tamit di lu ñu jaxase ak fuddan gàncax la goo xamante ni bu dul fuddan ñu di ko jaxase fuddan am na ñoo xamante ni nag fuddan lañ koy wooye ci yenn réewu naar yi kon mu ni su ma xamoon ne gan gi su ñëwee duma ko wekk ma ñuulal sama bopp bi kay mu bañ a feeñ sama bopp bi ñuul kukk donte màggat naa tamit fu ma defee ay yëfi saay-saay ñu ni ah waa ji kat bejjaawagut waaye bàyyi sax bejjaaw weex tàll ci sama bopp may def naka su dul noonu mu ni lool daal musiba la mu ni man lii bi raddi jimaaxin min gawaayatiha kama yuraddu jimaaxul xayli bil lujumi mu ne man lii ana kan ana kan lii di ma ñeel wala man ana kan lii di ma ñeel bi raddi jimaaxin di delloo aji màmm ji min gawaayatiha tukkee ci ak mbewam bakkan lay waxal rek moo tax muy ta'niisal damir yooyu ha kama yuraddu kom naka lañuy delloo jimaaxul xayli mammuk fas bil lujumi ci ay laabam mu ni fas bu màmmee laab jaa koy delloo ca kaw yoon wa waaye bakkan moom bu màmmee lu koy delloo ci kaw yoon wa mu ni kon lan mooy delloo bakkan bi ba mu tegewaat ci yoon comme ni ñi delloo fas wu màmm xëcc laab gi mu teguwaat ci kaw yoon mu ni falaa tarum bil maasi kasra shahwatiha inna taama yuqawwi shahwata nahimi mu ni falaa tarum bul di sàkku mukk kasra shahwatiha dogu bànneex yi bil maasi ci ay moy bu ni bakkan bi tey ma suural ko ci lim bëgg lépp mu jeex dootul xiif déedéet mu ne inna taama naka ñam yu qawwi dafay dëgëral shahwatan nahimi bànneexub aji fuqale ji bakkan mënoo koo xont ba mu suur ci bànneex déedéet fu mu toll rek moom ma ngay xiif kon bul ni mukk tey ma jox ko mu suur këll ci bànneex bu ko defee mu noppalu ma noppalu mu ni déedéet fala tarum bil maasi kasra shahwatiha inna taama yuqawwi shahwata nahimi wa nafsu ka tifli in tuhmilhu sabba ala xubbi ridaai wa in taftimhu yanfatimi mu ni wa nafsu bakkan ka tifli comme xale bu ndaw rek in tuhmilhu soo ko neenalee shabba dana màgg ala xubbi radaa'i ci bëgg nàmp wa in taftimhu soo boo ko feralee nag yan fatimi mu daal di fer mu ni bakkan comme xale bu ndaw boo ko neenalee bàyyi ko muy nàmp day nàmp ba sax be jaw waaye boo ko feralee mu daal di fer xale soo ko bàyyi woon muy nàmp mën naa nàmp ba ba am sax ñeenti at waaye xale boo ko bu amee benn at nga feral ko fer na kon bakkan noonu la demee soo ko bàyyee muy nàmp ci ay ay bëgg-bëggam ci lay continuer rek soo ko bàyyee muy nàmp ci bëgg-bëggam yooyu ci lay continuer du arrêté mukk soo ko feralee nag mu fer mu ni fasrif hawaaha wa xaadir an tuwalliyahu inna al hawa ma tawalla yusimi aw yasimi mu ni fasrif na nga soppi xawaaxa bànneexu bakkan maanaam bakkan bu ko bàyyi rek muy nekk ci ay bëgg-bëggam wa xaadir mu ni na nga waytandiku na nga moytandiku antuwalliyahu ba nga fal ko maanaam ba nga méngale ko li mu bëgg ndax innal hawa naka bànneexu bakkan maa tawalla lépp lu mu falu maanaam lépp lu mu méngoo yusmi boomeef loola aw yasimi wala ñu ay mu ayibal ko bakkan moom lu mu jiite yàq ko maanaam bombardé ko mu jeex mbala mu ayibal ko kon bakkan bu ko bàyyi mu yor fal gi mukk di doxal mu ni waraa'iha wa hiya fil a'maali saa'imatun wa in hiya staxallatil mar'a fala tusimi waraa'iha mu ni na sàmm ko de bakkan bii di ammaara bi suu i nanga ko sàmm wa hiya takkat mbir moomu moom saa'imatun aji wëtti la fil a'maali ci jëf yi bakkan moom day bëgg rek di wëtti ci jëf yu bon yi di def lu ko neex mu ni wa in hiya staxallat moom sax ndéem dafa sakkoo daganal almar'a sàmm ga fala tusimi de bul ko wëtal mukk bakkan foo daal nanga ko tënk ndax bakkan lu baax li ko cay neex bariwut ndax yu bari day metti te moom lu metti rek lay daw bakkan moom nu mu gën a neexe rek moo tax mu ni nanga ko sàmm bul ko wëtal mukk ndeem moom daa bëgg a wëtti sax teel bu mu wëtti wëtti mooy jur goo xamante ni dañ koo boyal mu dem kenn sàmm ko loolu mooy wëtti saa ima mooy jur gu ñu yiwi bàyyi ko mu dem fu ne lay dugg day dugg tool jàmbur day dugg ci mbooy gi bu dee nag dugg tool jàmbur moom moo ko gënal lu mu mën a am mu ni kam xassanat lazatan lil mar'i qatilatan min xaysu lam yadri anna summa fi dasami mu ni kam xassanat bari na bum la rafetalelee moom bakkan lazatan bànneex lil mar'i ñeel nit ñeel ascam te qaatilatan te loolu kat daf koy rey min xaysu fas foo xam ni laa yadri xamul ni min fay min xaysu fas foo xam ni lam yadri xamut anna summa naka tooke ga fit dasami ma ngi ca gerees ga fa mu gën a duufe bakkan kay loo gis dala koy rafetalal duufalal la ko rafetalal la ko waaye fekk woo tooke ja foofa la gën a bare moo tax mu ni kon lépp lu la bakkan rafetalal ñaawalal lool ndax bakkan du rafetal dara loo xamante ni lu baax la mu ni waxsad dasaa'isa min juu'in wa min shiba'in fa rubba maxmasatin sharrun min tuxami waxsa mu ni na nga ragal na nga moytandiku ad dasaa'isa way nëbbuy bakkan yi maanaam li nëbbu ci bakkan ci lan min juuin ci xiif wa min shibain ak ci regg suur fa rubba maxmasatin bariwaana xiif boo xamante ni charrun moo gën a bon fuuf mina tuxami ci regg bakkan daal bul ko bàyyi na nekk na diggu doomu bul ko teg lu mu àttanut boo xëyee xëy kat bëgg ni damay yéeg tey àgg ca yàlla tey lépp lu bakkan bañit nga def ko ko soo moytuwut da nga fàqe foofu te dootoo fa dellu si mukk moo tax mu ni la kon bu mu xiif bu mu regg maanaam bakkan bu bu bu ko bàyyi muy def li mu bëgg waaye tamit bu ko teg lu mu mënut bakkan bu ko teg tamit lu mu mënut parce que boo ko tegee lu mu mënut bu boobaa soo moytuwul foofu nga dawee fa dootoo fa dellu si loolu moo tax day ko teg loo xamante ni lu digg doomu rek la ndax nee na fa rubba maxmasatin sarun mina tuxami bari na koo xamante ni nee na bëggul regg far yàlla mu xiif xiif boo xamante ni ca lay doxee ragalub xiif ba dootul xiifati mukk kon nit ki na nekk rek ku diggu doomu wastafrigi dama min aynin qad imtalaat min almaxaarimi walzam ximyata nadami mu ni wastafrixi na nga sàkkoo tuur ak dama rongoñ min aynin mu jóge ci bët boo xam ni xadim tala at fees na minal maxaarimi ci ay yu araam ay ñaawteef mu ni walzamta na nga taqoo nag ximyatan nadami kaaraangeeg rëccu kon nit ki na jooy ay bàkkaaram mu mitti ko saa bu ko fàttalikoo na ko mitti ba pare nag mu taqoo rëccu ba pare bàyyi nag ñaawteef ya ca sensé loolu bu ko defee rek sarti tuub daal di daje ci moom bàkkaar di ko def garaawut waaye di ko def yëgoo ni li ngay def bàkkaar la looloo garaaw tànk nit ki mi ngi ñaawlu ay ñaawteef rek fitraam a ngi baax ba léegi waaye bis bu demee ba lu ñaaw ñaawatul ci moom fitraam yàqu na da gis ko xam ne nit ki nag day yàgg a def lu bon ba defee bu defee bàkkaar bu mag sax du garaaw ci moom bu njaaloo day mel ni ku tëdd ak soxnaam bu boobaa fitraam yàqu na kon tànk nit ki mi ngi ñaaw luy bàkkaaram di ci xelam di ci dem mu ciy rus kooku ba léegi fitraam a ngi baax wa xaalifin nafsa wa shaytaana waasihima wa inhuma maxaddaaka nusxa fattahimi mu ni wa xaalifin nafsa na nga wuute ak bakkan wa shaytaana ak shaytaane waasihima ta nga moy leen liñ lay digal lépp moyal bu leen topp mukk wa inhuma doonte ñoom ñaar sax nag bés ñëw na maxaddaaka ñu sellalal la an nusxa laaye biir fattahimi na nga leen tuumaal jubuñu de ñoom ñaar kenn jubu ci bakkan ak seytaane kenn jubu ci bis buñ la waxee sax lu baax dee leen bàyyi xel noonu la budul dàcc ci ay pexeem moo tax mu ni wala tuti minhuma xasman wala xakaman fa anta taarifu kaydal xasmi wal xakami mu ni wala tuti bul topp mukk minhuma ci ñoom ñaar ñooñu xasman aji xuloo ji wala xakaman wala aji àtte ji fa anta tandak yow taarifu xam nga kaydal xasmi pexem aji xuloo ji wal xakami ak aji àtte ji ñaar ñi bëgg a wax xasmu bi mooy benn mu nekk bakkan wala mu nekk seytaane xakam bi mën na nekk bakkan wala nekk seytaane léegi nag mu ni bakkan su fekkente ni dafa xuloo ak xel wala seytaane xuloo ak xel wala boog bakkan ak seytaane ñu xuloo wala boog bakk waaw bakkan ak xel ñu xuloo jël seytaane def ko àttekat wala seytaane ak xel ñu xuloo jël bakkan mu def ko àttekat kon moo ñooñu mooy xasman wala xakaman benn bakkan nekk aji xuloo ji wala mu nekk aji àtte ji wala seytaane nekk aji xuloo ji wala aji àtte ji mu ne ñoom ñaar ñi nag bu ci topp kenn kon toppal xel moo tax mu ni fa anta taarifu kaydal xasmi wal xakami ta kat yow xam nga pexem aji àtte ji ak aji xuloo ji mu ni astagfirullah astagfirullaha min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lizi uqmin mu ni astagfirullaha maa ngi jéggulu suñu boroom min qawlin ci ay wax bila amalin ci lu àndul ak jëf ndax loolu de bu ma ko defee mu ni laqad nasabtu askanale na bihi ci moom naslan ngërt loo xamante ni li si xuqmin ñeel na borom ak aji jaasir koo xamante ni du am doom mu ni su ma dee wax te duma jëf bëgg ñu jur doom du ñu jur doom mukk foofa sëy boobu doom mënu fee am wax ju àndul ak jëf ngërt mu ni mënu ci am mu ni amartukal xayra lakin ma tamartu bihi wa ma staqamtu fa ma qawli laka staqimi mu ni amartuka maa ngi lay digal alxayra yiw lakin waaye li fi nekk nag ma tamartu bihi man defuma ko de wa ma staqamtu te jubuma fama lii ana fama xaw lii ana lan mooy ñeel samay wax lakka di la ñeel istaqimi naan la jubal man nu ma lay digale sangu tamaan sanguma ata amuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum mu ni kon maa ngi lay digal yiw waaye man témbuwuma ko maanaam defuma ko maa ngi lay digal njub waaye man jubuma kon lu tax ma naan la jubal sax wala tazawwadtu qabla almawti naafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi mu ne wala tazawwadtu te yóbbaluwuma qabla almawti lu njëkk may faatu naafilatan benn julli naafila walam usalli maanaam naafila boobu bu ne mën na ci dugg maanaam jëf ju baax walam usalli te julliwuma siwa fardin lu dul farata walam asumi te wóoruma siwaa fardin tamit lu dul farata man daal samay jëf ak samay yépp benn romb ci farata kon naa yóbbaluma benn yóbbal boo xamante ni dina diisal sama balance ëllëg julliwuma lu dul julli farata wóoruma lu dul kooru farata kon naafila yi defuma ci dara foofu la buntub ñaareel bi yam ñu leen di jox dig daje ba subaak jàmm incha allah mu dugg ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la jeexale introduction bi commencé nag fi madxi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh